dafa commencé lu tax ñu am ñu wax leen ne na def barrière distance bokka ci ñu respecté diggante nit ak keneen bu ñu ne bu ñu mbooloo ni lu tax ñu wax ko sharia al islamiya dafa ne bu ngeen di julli na ngeen di def mbagga ak mbagga seytaan coronavirus mu ne bu ngeen ko defee rek dinaa di ngeen am wàllante mu nekk dégg wante nag est-ce que noonu la ñu yàlla bàyyee mu ne ma jox naa leen إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا ليلا يا الله بنيبه مني دفلن ديسال ñu ne waaw dinañ ko def wante ñun am nañu arme boo xam ne ñoom lay lay daxee mooy auzu billahi mina sheytaani rajim ku nekk man na ko ku nekk mun na ko man ku ñu ko jàngal na kenn du jàng alquran te waxuloo auzu billahi mina sheytaani rajim kon nag na ngeen xam distance bi ñu respecté ko wante mun nañ ko daxa suñu diggante mun nañ ko daxa ci jumaa bi mun nañ ko jaxa ci quartier bi nit ñi seen góom tuuti bu amee ñu góom seen góom tuuti yàlla def day yombalal yow nga bugg a jafe indi jafe-jafe ci sa waaw loolu bu ñuy julli wax naa ko ci suma première xutba fii pour affaire corona ma leen def leen respecté leen distance bu ñu wax wante da leen ko ci bi auzu billahi min asheytan rajim booy def takbir bu ñu balaa ngay def takbiratul ihram nga ne auzu billahi min asheytan rajim auzu billahi min asheytan rajim yàlla dina jëlee seen diggante mu jëlee ko ci jumaa bi mu jëlee ko ci quartier bi yépp benn seetaan du fa am ngeen julli seen julli ngeen jaamoo seen jaam wante nag nit ñi def dul dooyal walla def dul dégga du ñu ko wax xanaa alma am na boo xam ne bu am efficacité ni ki awuzu billahi mina seytaani suñu diggante ak seytaan amul na gom loolu ngeen respecté waxi autorité ngeen def distance ñaareel bi bu fekkee xam nga dara nga sàgganee ko nga xam dara nga sagganee kan moo tooñ boppam ku xam pare mu sagganee ko moo tax mu ne alima min min min ayatina shay'an attaxadahu huzwan lahum azabun muhin ñooñu xam nga eh, azab mooy toroxal walla mooy punition punition yi dañu am ay décret ñëpp nekkuñu benn asoloon nekkuñu benn daraja kuy def loolu nga xam dara nga sàgganee ko walla joxuloo ko importance bu ëllëgee yàlla def dee toroxal boole ko ak eh, boole ko ak eh, ñàkk laa respect lépp lu ñu am nii muy lu jiitu coronavirus mooy sida mooy Ebola muy coronavirus bii yàlla du indi dara lu dul mu def ay étape te nag képp koo xam ne dafa yaakaar ne xam na lépp ne ko unhun wante amul ku xam yépp yàlla moo ko mu ne maa utiitu min al ilmi illa qalilan jox leen xam-xam lu dul lu tuuti léegi ba tey de lu ma junj mooy léegi état yoo xam ne ñu ñooy ne état ñoo xam ne avancé nañu ci xam-xam ci armement ci alal ñooñu yaakaar nañ ne xam nañu yépp nax nañ seen bopp walla bew nañu xam nga nit yàlla bu la mayee ba nga yaakaar ne yow yaa ko liggéeyal sa boppa dangay béw même suñu réew mi fii am na borom alal yoo xam ne dañu béw am na boroom xam-xam yoo xam ne dañuy béw yàlla nañ yàlla musal yàlla may la nga béw yàlla mu la may mun na ko jëlee ci saasi ci seconde walla ci minute wante nag ñu bari xamuñu ko ma jox leen ay firnde président de la république bu may consulter dajale nit ñi sénégalais yi muy politiciens yi muy sëriñ ñi muy ñëpp mu ne leen léegi dama leen di laaj léegi de lii am na ñun ñépp gis nañ ko wante mu am mu ne léegi kuy ñëw ci pale bi il nga raxasu il faut nga kaalaw du ñu nuyante xam nga foofu laa man ci suma boppa foofu laa xam ne président def na loo xam ne lu baax la wante yàq na ko ci tam mu mooy recevoir ñii warul woon ñun population bi ñun ñoo ko fal buy nekk ci suñu ordre lu mu teral ñëpp ñeen ko war a teral ñun ñëpp ñoo ko war a ñëw boo ñëwee ci bunta bi na nga raxasu boo ñëwee nuyante amul suma mag junja na ko mu ne foofu la démissionné ñëpp adduna bi yëpp di ko gis population bi yëpp di ko xanaa ñun ñëpp dañu nekk ay ignorant déedéet dañoo lu tax mu bàyyi kenn bañ moom mu toppa ko ci loolu lu tax mu toppa ko ci loolu kooku bu bañee nañ ko génne ak fa teg te loolu seetu naa ko ci politicien sénégalais lu tax nit ku la yónni lu mu la wax def ko du yow la ñuy xas wante du sa kilifa wax mu ne la defal lii yow nga def contraire du mu la wax loolu bokk na ci du ñu indil problème yu bare loolu ci code chrétien na ak liggéey moo tax nag comme yàlla fàttul ti tuub moo tax bu ñu tuubee nag yàlla jéggal ñu